por ti ñu dem seeti benn vidéo bi nga xamante ni kii di Papa Ngagne Diagne séq na ko ak kii di El Malick bu Pastef li may wax rek ñoom si seen bopp ci seen parti dafa rëppëj ko si seen communication sax déggoo ñu seen biir kii day weddi sa morom Sonko su waxee parfois El Malick toog ci plateau weddi ko wala ñoom ñuy weddan seen biir donc sénégalais yi da ngeen war a bàyyi xel bu baax ci propos yi nga xamante ni ñenn ci leaderu Pastef yi ñenn laa wax ci leaderu Pastef yi ñi ngi koy yëkkati nañu déglu ju vidéo bi dellu si waat mais loolu képp ku ko xool di su fekkee loolu nga bëggoon ma egg si c'est ça loolu moo ma def kersa alors gis ngeen ko lan ngeen gisee euh, soxti boobu nga xam ni def na ko moom aji Sarr ñu jëm ci ndaw seeg coow yooyu moom duma ci sax perte temps parce que am naa yaakaar ni juge bi ngeen war a dem wax ak comme ni ko ñëpp waxe xam nga ñun Alaaji Malik dañuy jatan sëriñ El Hadj

ay avocat am sàmmoonteeg eu non xoolal. di posé ay actes argument boobu. Serigne bi Ousmane Sonko. soo paree ma yeggali mais dama la bëgg a wax ne li may wax ki ki wax juge bi. li may wax du ma ko changé ki wax juge bi faale wu eu ko. li may li may wax ki ñu fal kooku bul ne ma dafa dégg juge bi. Serigne bi voilà non dama ne la. dossier bi déggoo ba léegi président Ousmane Sonko ŋaan ci wala. bu ci wax lan la ci wax amul lu mu ci wax. <laughs> non non est ce que amul lu mu ci ah, wax kon yow. non dama ne est ce que amul lu mu ci wax kon yow da nga tënk yëf yi. non waxu non dama ne. non non non defal naa da nga tënk yëf yi. wax ju non. dama ne dama ne est ce que mën na ci wax lu paase li mu ci wax ñëpp dégg ko. dama ne président Ousmane Sonko sàmmonte nag li ñu ko wax ay avocat ñoo déposé demande déposé waat demande jusqu'à présent lii ma lay woon dinaa la ko jox nga xool ko mooy demande bi mujj bi. interpeller leen jusqu'à présent juge yi nanguwuñ ci yëy nanguwuñ ci yàbbi xam nga lu ko waral. déedéet pendant ce temps. non ca geneen ca beneen wàll ga. non sëñ bi defal ndànk rek. bul ma dagg bul ma dagg non du ma la bàyyi nga wax. Euh. du ma la bàyyi nga wax ca geneen wàll ga. yaa ngi dégg ña nekk ca geneen wàll ga di ratatati suba ngoon lan moo tax parce que ñu dem procès comme bugguñu dem procès xam nga lan moo xew. complot international Vous que mais France le problème président Ousmane Sonko de Fayette Afrique ce sentiment panafricain fierté d'être africain à yéenaa jël suñu avenir loolu nous li nga France nous un nous, nous,

mais lan nga gis. mobiliser wu bu ñu mobiliser wul woon nga yaakaar ne kon mars heure bii nii Sonko dina fekk fi. nan lañ fi def Khalifa nan lañ fi def euh, Karim. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi nga xamante ni El Malick bu Pastef bi mu jàkkaarloog Papa Ngagne Ndiaye ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko nee na dossier bi mi ngi ci justice dañ leen ne ñu noppi moo tax ñu noppi yaakaar naa ni El Malick dafa mel ni communication Pastef wala leader am daf koy réer yenn saay su ngeen fàttalikoo ginnaaw bi ñu génnee ci événement marché yi kii di Ousmane Sonko moo njëkk dem Jeune Afrique def fa interview dem RFI def fa interview ba noppi dem ci benn télévision française bi nga xamante ni filiale am TF1 def fa interview ba ñu jógee foofu France 24 ki di Bassirou Diomaye Faye est invité France 24 après événement yoyu Ben bobu jamono jooju amul ken ku wax dara tay support yoyu ñëw jël Adji Sarr problème bi concerné Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñi ne français yi ñoo ci doglu té Ousmane Sonko mo ñëk dem ci français def interview ak Jenaf